loo bëgg a wax ci nit ni ku baax la deseeloo ko dara jikkoy kilifa la amee neex na deret yomb na te doyadiwul yiw na am na tarbiya ci kër maamam ñu di ko nuyu di ko ndokkeel di ko ziyaara ah, di nuyu sang ba ca Kaolack di xalifa Mahi Niass xalifa Mahi Niass di ko nuyu di ko gërëm di ko sant bi tabaski yi jubsee te Aji Maxtaar Njaay mi jëf-jëfam juree jooju mu jëf ci kër kilifa yi fu ne mu dem fa toog wax ak moom ba mu waxtaanee moog Mansour Fall ba noppi la sëriñ maa tontu ku ne dégg nga nit ku dal nit ku mat fa tabarakallahu nit ku xam boppam nit ku jaar ci yoonu xam boroomam ak di ko wut loolu la fa donne ndax kër maam Abdoulaye Niass ku fa demoon tey di jeexaat doo fa for lu dul yàlla ak Cheikh Ahmad Tijani kon su maay ñëwee toog place su mag ña doxalee noonu mel noonu yaakaar mën na aju ci moom ni ku ko jàpp mën nga àgg eh, di ko ziyaara moom njaboot ga yëpp imam Cheikh Tidiane Cissé di ziyaara itam Cheikh Ahmed Tidiane Niass ca law na ñaseen ziyaare ko ndokkeel ko moom njaboot go fa nekk ku mel na Seyid Arabi Ñas di ko nuyu di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jàppale ci yan bi nga xam ni kenn tànn ko yàllaa ko tànnal boppam teg ko ci kawam nuyu sëñ sëñ Muniru Njigéen xalifa maam Ahmed Njigéen ca di ko ziyaara di ko ndokkeel ni ñu def ñëpp di nuyu sëñ Daawuda Moxtaar Laay di xalifa bii nga xam ni dafay sog a toog dafay soog a toog te door moo gën a jafe àggale lii mu sumb nag parce que yéene àggale yàlla na ko ci yàlla jàppale di nuyu Ousseynou Seck Assane Seck xalifa Ceneba bii soog a toog moom itam li ñu wax ci sëñ Mokhtar Daouda Laye moom la ñuy wax ci moom ñu teg ci sëñ Ousmane Ngom Hadj usmaan Ngom ca Paal di ko xam ni ñoo bokk jataay bii ndax li fi am solo maamam ak Seydi El Hadj Malick ko bokk taxawal ko ba mu taxaw waaye yàlla def na teew na nax bi ñëpp teewee Serigne Bachir Ngom a ngi nii toog di borom xam-xam di borom yar di borom sutura wuutu ko fi toogal ko xam naa lim dafa mënul a ñàkk waaye bu ñu ne woon xeetu Seydina Muhammad rek ñëpp dugg Serigne Abdoul Aziz Touré ngante tax ndew ñoo waroon a bokk jataay bii bu ñëwee du gan du jaambur lii fi am la fi am ci ñaari wàllam yëpp ci ñaari wàllam yëpp Seydi Hajj Malick a jur ndeyam Seydi Hajj Malick a yar baayam ñu nangu ko jàngal baayam baayam nekkoon nit koo xam ne kii nag jaar na ci Seydi Haj Malik waaye yàlla la gëmoon yàlla ko doyoon moom la doon wut dajeeg Seydi Haj Malik ndax dañuy wax ni Alhaji Saïd Nooru Taal dafa wax ni amoon naa jamono su ma la nee ana diw nga ne ma ma nga Bamako bu ma ko joxoñee sama baaraam dina ko laal te fii laay toog defoon naa ni duma ma benn nit topp ci gannaawam waaye ba ma dajeeg Seydi Hadj ñu jëflante dama walbati ko rek topp ci gannaaw moom nag bokkoon na ci mag ñi nga xam ni moo moo moo Serigne Hadi mi ñoo da ñoo ñoo seqoon Seydi Hadji Malick ndax ñoom Thierno dafa nekkoon magum kër gi lu ñu bëgg a wax Maodo moom lañ koy wax mu wax ko lu ñu ko bëgg a laaj moom lañ koy laaj Seydi Hadji Malick ci xormaam mu jàppe ko Cheikh Oumar Foutiyou jaaree lu bari ci roxom seulement dafay dafay xat waaye kon moom it ma wax ci moom li jot a xam aslëf li ma xam ci moom moom Seydou Nour Tall am na lu ma xam ci moom ndax dama taxoo woon ak moom Seydou Nour mooy sama sëriñ jaar naa man fu bare daan naa ko laaj lu bare itam bare na lu ma dégg ci Seydi El ci moom laa ko déggi ndax ku lay nettali histoire ba daanu ci sa kaw senkom tàqalikoog sagoom ba fi mu téye ci yow bala balay dañ ay nit ay ñëw dindi ko kooku la mu lay wax rëy ci moom

delloo boppam gannaaw te bu ko matul woon ndakaaru duñ ko jiital moom it fa mu toog ay maga fa toogoon ala jama Lamin Jéen ak ñeneen ak ñeneen kon ñun nuyu alaaji dugal ci nag ilimaan yëpp bàyyiwuñu benn képp ku ilimaan rek dugal nañ la ci biir ndax lii ñuy wax amul discrimination ñëpp jaamu yàlla lañu ñëpp ay bokk lañu innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum loolu la ñu yàlla wax su ko defee ña ca di mbooloo yi nga xam ni dañ ko sos te sos ko ci turu diine muy aljamiyatul islamiya yëpp di dund fii ci Sénégal mën nañu wax ni lañu ñu ciy jëkk a wax mooy ibaadu rahman dugal ci ñi ci les ñëpp teg ca président daayira yëpp Sénégal fu bare daayira la waaye daayira yi ñu mën a tudd ñu boot daayira yi ci des mooy daayiratul kiraam ak daayiratul ahmadiya ñu boot daayira yëpp ndax daayira bare na waaye daayira dëgg-dëgg sëñ Babacar Sy radiyallahu moo ko a sos gannaaw baayam Seydi Hajj Malick ca jigéen jë jigéen jëkka maam ko ba mu ne may seen góoru mbootaay dindi ngur dem ba jox leen Seydi Seydi Aboubacar radiyallahu ñëw saxal loolu yaatal ko wax digle na mu war a doxee fa ngay yaakaare yàlla bu fa gëj fa ngay wutee yàlla bu fa gëj fa nga xam ne boo amee yàlla fa nga jëm bu fa gëj ci mooy mooy ak suñu yoonu Tiwaawan suñu diine suñu tariqa ak suñu yoonu Tiwaawan waaw suñu daayira suñu yoon loolu